wa mawlaana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa saabihi wa xadimihi sawi ritwaani wa tamkin bokki jullit bokki talib bokki réewum Sénégal bokki Tuuba maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam santam di leen siyaare te di leen bal xaq tey bal xaq ñëpp te ñaan yàlla mu boole ñu jéggal tey ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi te wér tey yàlla dolli fa jàmm te saxal nit ñi ci jaamu yàlla ndax jaamu yàlla ci la jàmm nekk war a dellusiwaat rek ci sunu ñaareelu xaaju waxtaan wi nga xam ne sumboon nañ ko jëme ko ci jafe-jafe yi nga xam ne fan yi ñu nekk moom la Touba di dund communauté mouride di ko dund te lépp rek di politique bu doon jëmi politique dong duñ ci yëkkati sunu kàddu waaye politique bi ñu bëgg a jabolise ak yoonu murit bi nga xam ne ñépp a ko bokk takki sos yoon wi sos ko ci ndigalal boromam yonent bi dikkal ko mu taxawal yoon wi ca Mbàkke Kajoor am jegewul politique diglewul daray politique ak njëlbeenam ba ci niñ ko mujj a gisee lépp ci ma mustaqim la ko teg muy Seexul Xadim layoo naag ñun te lay yay nañu ndax bind na bàyyi fi wax nañu dégg jëf nañu gis mag nag bu bindee bàyyi fi yaakaar naa ne képp ku taxaw bëgg koo sosal wala nga bëgg a modifier ay waxam yaakaar naa dana jafe lool nga wax ko ndax ndéew réew ma boroom yi xam-xama fi nekk surtout yoon wi seen xam-xam nag dañ koo jënd ak taalu bi ba taalibe bi muur xam-xam bi ndax loola mooy njariñal taalibe loola nag bu taxee kenn ku nekk jàpp ne taalibe yi dañoo dof wala dañoo am beneen buur bu dul yàlla wala dafa am ku dox wala ñu bëgg a dox seen diggante ak sëñ Tuubaa di leen utiliser te duñ leen digal mukk li taxoon sëñ Tuubaa ñëw di yeesal sunna si bi sallallahu alayhi wa mu mel ni fan yi politique bi nga xam ne moo tax coow li bari seexul xadim lam tegoon tànkam mooy fa yonante bi tegoon tànkam te fa yonante bi tegoon tànkam mooy siraatal mustaqim lazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin amin loolee nag ñëpp ñëpp la walaabal ci ko topp sëñ Touba xam nga sëñ Touba wootewul ci politique wootewul it ab campagne li nga xam ne moom la woote mooy ni yàlla bëgg ab jullit mel ni te to jaare ko ci bunt bi nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxi sëñ Touba yi du soppiku bu mukk nag sëñ bi wax lii tey bu subaa mu wax moo tax nag waxal ko lu dul dëgg moom du yomb léegi sëñ Tuubaa it xam ngeen dafa bokkoon ci lim doon woote kennal yàlla te kennal yàlla ci la ñuy xàmmee jullit bi nga xam ne ab jullit dëggantaan la ndax yàlla kenn du ko wotal morom ndax yàlla rek a yàlla dul yàlla du yàlla sëriñ Tuubaa ñetti point danaa ko indi ci wéetal yàlla Serigne Touba liggéey sax bu ko mosaan deflu ca këram bu nit ñi di liggéey ba waxtu julli jot te liggéey ca bàyyiwuñ dem julli ji bu dikkee dana corriger laaj ndax bi waxtu julli jotee julli ji ngeen te booba kenn du wax lu dul dëgg am ñu ne ko nun dey julli ji wuñ mu ne lu tax mu ne dañoo nekkoon ci sa ndigal mu ne leen ndigalal yàlla dey moo jiitu sama ndigal fu ngeen tolloon bi ñuy nodd ñu ne ko barab sàngam mu ne tàmbali leen foofa teppi loolu yaakaar naa jëralatu ko kenn ci kaw suuf mu tegaat ca keneen ñëw fekk ko fi mu nekk jël ëmbub gura andil ko mu ne ko loo ci jublu mu ne ko damaa dégg ñu ne dangaa bëgg gura mu ne fu fi gura nekk ci kër gi na ngeen ko jël yóbbu man kenn duma màndargaal ci lenn lu dul bëgg yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sëriñ tubaa noo nii la jàppee woon suñ borom moo tax mu ne atihu illaahi xaadiman lil wasiiti lil wasiilati damay topp yàlla tey liggéeyal sama wasila kas bi ya tawxiidun wa mat li nabi sama pàgguteef mooy wéetal yàlla ak tagg yonent bi alayhi salaam mu ñëw nag feeñ ci tur bi muy abdullahi wa xadimi rasulihi kooka kon bàyyiwul dara ci li mu war a wéetal suñ borom waxit na mahal baqaa i waxee lillaahi lillaahi ndax loola nit dan kooku nit dana cosaanoo ci moom ci wàlluk deret war a jàng ba dañ ci réer wala jël yoonu sëñ Tuubaa dox ci taxaw ci digg mbooloo di yëkkati kàdd goo xam ne si ku am xam-xam ku nekk da nga tiit ndax niñ déggee sëñ tubaa ci xam-xam ba noppi nit di ko tuddoo ba noppi di wax ci jahil loola fokk mu jaaxal borom xam-xam yi benn dañoo jàngul wala dañoo topp seen bakkan wala dañoo bëgg a entraîner ñu topp ci seen gannaaw ci wan leen ne leen sëriñ Tuubaa yàlla sëriñ tubaa moom it ci wàllu boppam foofii la tegoon tànkam kon kooku wala ñooñu bu ñu jógee di wax ci mbooloo ñuy wax naan réew mi réewum sëñ Touba la réew mi réewum sëñ Touba la di ko répété di ko répété ci jataay yu bari ku bokk ci réew mi ku nekk boo ko déggee da nga xam ne jooju wax taxawul jooju wax wérul te jooju wax waxluwul ndax réew mi du réewum sëñ Touba sëñ Touba daa bokk ci biir réew mi waaye réew mi moom du réewum sëñ Touba ndax fi la gadee jamono ci ay waajuram fekk na fi nit ñi dëkk fi boroom xam-xam yeeg sëriñ seeg kenn ku ne dëkk fi te kenn ku nekk am nga yoon wa tënk kon réew mi du réewum sëñ tubaa loolu ku ko wax buñ la corrigé na la wër na yaa ko yóbbi sa bopp ndax nit buy wax day wax loo xamee ne que nii lu waxu la ndax boo toppee sa nafs it bëgg a jël loo xam ne si ñëpp a ko bokk nga bëgg koo akimu it buñ la ca tontoo na nga xam ne nag loo ca dégg yaa ko teg sa bopp beneen bi ci des da dangay toog dégg ñuy wax naan réew mi ku fi falu sëñ Touba la jooju waxit waxi jaahil mënu ko weesu jaahil ci boppam mooy waxe noonu ndax bu fekkee maktaba bi nga toll la ak li ngay wooyee ci sëñ bi moo tax nga di ko wax yaakaar naa ne gën a ëppub cër sëñ Abdou Lahad ci kaw yoonu murit moom amul ndax sëñ Touba moom buñ ko mënee wax dañ naan doom la woon ci sëñ Touba te wax na fii Abdou Diouf ne ko nun day duñ fal ndax fal moom kenn koy def muy rëbb sama waati wal bu ñu doon fal lay nun dañ naan nañ la fal te buñ la folli waaye comme duñ fal nag ay carte dong lañ mën a seq ak yow te liggéeyal nga ñu ci dëkk bii lu jar ñu di la woteel kon murit bu la warale saw carte war na sëñ Tuubaa yaakaar naa loola moo gën a tegu ci xam-xam moo gën a tegu ci taw tawxiid léegi bu loolu jàllee dañoo gis ne li ñu boole ak yéen lu dara lu dul orma rek waaye xam ngeen ne kenn matu cib sëriñ kenn kenn matu cib sëriñ kenn ndax foofu waay boof rek sëñ tubaa tax nga di fa boof te lañ gis ci sëñ tubaa tax biñ ko noppee gis ci bët kenn ku nekk wut foo xamante ne ci fa ngay dem feddale fa sa kóllëre waaye kenn koo xam ne nii mat nga ci nit ab sëriñ amul te ni sëriñ tubaa waxee ne ni lañuy ñuy sëriñ ak ni ab sëriñ war a mel kon nag loole boo ko jaawalee sa mbirum bopp ba tax nga defee ne nag yow la te du yow ba tax ngay jël ay ndigal wala ay condition di ko conditionné nit ñi booleeg di leen ci forcé booleeg doo leen ci neexal te tegoo ko ci xam-xam loola moom nit ñi dañuy am droit nag téye seen bopp xam ne loola boolewu leen nit daal boo ko woowee ci sëñ Tuubaa mi ngeen bokk mu wuy si la boo ko woowee ci leneen nit loola moom sañ la caa demee xelam moom ndax loola moom spécialiste yi woo ci sëñ bi wóotiloo wula ca amoo ci xam-xam amoo ci benn ndombal tànk kon nag bu kenn jaawale taalibe yi sëñ Tuubaa yi def leen ay militant kuy woote te yàlla tax boo diglee yàlla digal ña la topp ne ko dem leen ngeen topp ko kuy wootee sa bakkan nag wala ngay woote nguur boo diglee yàlla tere ña nga xam ne ñoo topp ci sa gannaaw loolu dafa war a leer dun jaamu kenn ku dul yàlla dun taalibe kenn ku dul sëñ Tuubaa dun roy kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa kon loolu nit ñi dañ koo war a dugal ci seen bopp te xam ne loola mooy dëgg dëgg dëgg dëgg ab jullit loola mooy dëgg dëgg dëgg ab murit ku fa jàpp loola jàpp nga yoon wa tegu ci yoon wa ku fa wàcc loola wàcc nga yoon wa nag leneen la ngay woote te du sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa boolewul ak taalibe yi ca loola nga bëgg a defe ne aw sant dana tax loo wote ñu wuy si la ci ko def da ngaa juum lan moo tax nag léegi boo wootee leneen lu dul sëñ Tuubaa keneen jaare ko ci beneen boor am feneen fu mu ca féete par exemple tey nga taxaw lii xew léegi nga xam ne politique bi ñàkkal nañ seen bopp fayda ba ñoom ñu ñëw am fulla yi dugg ci seen biir jaxase leen ci alal wan leen geneen xar kanam récupérer seeni conscience ba ngeen dem ba nga xam ne deseetu leen benn crédibilité ñu di leen manipuler di leen dawloo jaxase leen ak taalibe yi ba kenn dutu leen bëgg xool loola seenu ñàkk fayda la waaye sëñ Touba ñagoon na leen ba dugal leen ci barab boo xam ne bu ngeen fa toogoon def la sëñ Touba digle kenn du ma sa dox ba yeb leen waaye nag gaynde de cëpp àll lañ koy ragale waaye di su ko ragale ci ay taax ndax képp ku ko gis ci ay taax day raay ak foto rek waaye ku ko gis cëpp àll rek ay jéego kon ab sëriñ dafay ñeme ab àll sëriñ Touba sëriñ bi dafay ñeme ab wéetaay ab sëriñ dafay ñeme jaamu yàlla ab sëriñ day day ñeme day ñeme dëgg bu fa waccee nag moo gaynde doo nga yem mool nag moo yor sa fetal gu yoruti bal maanaam di ci xabalaate koo ci xabal it bu dawee daa ragal rek waaye ku tegu ci siraatal mustaqim foo tiiree dara du ñëw mooy dañoo jël sëñ Tuubaa def kook fetal te ay bal nekku ci muy di wane bëtin te dara nekku ci te ñu am bëtin sax duñ ko wane kon ku ngeen dégg muy bawaka yu ko xam leen ne kooka du tus nit ñi duñ jaamu kenn ku ñuy forcé nekko ko kaay leen bëgg ki ma bëgg te loola sax firndeel ne ñu doon wax naan ku fal waa Touba la fal te waa Touba day ki ngeen bëgg ba di ko topp ba mu tax leen a wàcc seenub sees mënu leen ko indil ñaari militan ci biir Touba kooku kon war naa xam ne la ngeen nekk sëñ Touba nekku ci lu sëñ Touba nekkul nag kuy wut sëñ Touba moytu loola sori ko nga gis ku ñàkki teggin ku ñàkk ab yaram ku yaroo sagom jëngul yaruñu ko amutub taalibe amul kilifa taxaw ci ab télévision di wax ci turu yoonu murit te wékku ko ci fudul rek man ci kër gi laa bokk sëñ Muntaxa laa ormal te sëñ Muntaxa moom mu ngi naan moom laa ormal teg nga ko fi gàcce ci ndakaaru gi gàcce gu kenn dutul fàtte ci toog rek bëggal bëggal dund te nanguwoo liggéey yor ji koy tan di xas kim jiital ci masalikul jinaan ci di ko tuumaal ci milliard kim jiital nit jox ko kàddu yoon nga di ko tuumaal ci ay milliards comme lii nga wax tey jii rek wëlbati ko ña nga doon xas démb nga taxaw ànd ak ñoom tey di xas ñi nga xamante ne si tey ñooy ñeneen ñi ci des te lépp boo ko xoolee fond bi xaalis la kon yow xiram ngay jàll ba sëñ Muntaxa taxaw di jéggalul sëñ Touba ci jataay ba ba ngeen gis mu jël kaala gi teg ko ci wér yi loolu da yow lañ ko mas a gis nga def ko ci ko suuf yow mii di waxit naan ormay tuubaa ji nañ ci te garsun bakkanit ak ku mën a doon nag ku ko wax waroon nga caa boole setub sëñ bi demoon ca kër sëñ Touba dajale fa militant yi APR yi muy Benno Bokk Yaakaar di fa fecc te xam nga ne kër sëñ Tuubaa du barabu mitinukaay du permanence wajxal bu yooti kullaha masajida loola waral nga ko boole ci discours booy yëkkatiiti war nga cee boole loolu loola boo ca gëmee it kenn gëmu ci te xam nañ li tax nga gëmu ci bëgg a xippi say bët ci leneen loo xam ne que nii da nga ko bëgg xaj ñi nga xamante ni si ñoo am seen choix tànn ko dem di ci def yow mii toogoon ci télévision bi xëcc sa mbaxana yit di woote ak sañ ab sañ-sañ te war a toll ci jàngi war a ñu war laa yar war laa teg siraatal mustaqim nga doon ab taalibe nga taxaw ànd ak président Macky Sall tax ngay xas koo bokkal diine xas koo bokkal deret xas koo bokkal yoon wi xas koo sa mbokkum jullit taxaw ci digg télé bi di leen xas di leen wax naan seeni bàyyi juru leen muy lu ñaaw sëñ Assane Mbacke moom mii nga taxaw wax ko kaddu ku mel noonu sëñ Cheikh Thioro mii nga taxaw wax ko kàdd gu mel noonu tooñ nga leen tooñ ngoo xam ne buñ la ko jéggalul na la wóor ne dana la topp ci àddina na topp ci àllaaxira ndax gënoo leen ci juddu gënoo leen ci lislaam gënoo leen ci yoon wi gënoo leen ci sëñ Touba gënoo leen ci tubaa te la ngay xëccoog ñoom loola yoonu sëñ Touba nekku ci bu ca tudd sëñ Muntaxa mukk ndax sëñ Muntaxa diggalal loola te sëñ Muntaxa boo ko ormaaloon wala nga bëgg koo dimbali ci sa jikko jii ngay tàmbali dimbali ko ci na fexe ba bul wax mukk la nit ñi dala ci sa kaw ñu koy tudd di la tudd noonu lañuy ñuy dimbalee kilifa noonu la ñuy ànd ak kilifa Ousmane Sonko mii la xañ jàmm nag ba tax nga bëgg koo génnee ci yoonu murit bii ndax nit bu fekkente ne yow bu àndut ak yow bu àndeek Ousmane Sonko nga taxaw ne sa baay juru la wax ko Assane Mbacké wax ko Cheikh Thioro wax leen ne leen nit sëñ Tuubaa du seenub sëriñ loola topp sa bakkan dong moo la ko yóbbee te loola du fi guléet yàggees na ko wax ci yoon bu ngeen kompaloo te seen kompaloo nar a jooy rek ngeen daal di jël kenn tuumaal ko fi xewoon na fi bu ay at ci gannaaw bu fi kilifa gu mag génne àddina xewoon na fi kilifa goo xam ne si kenn su ko dégg dara ñu xëy xëy te gone yu réew yu xamale yu ñàkk teggin li tuddoo sëñ bi taxaw di seppi kooka ci kër ga naan bokku ceeg di wa ko wax ak dawa ko wax waaye booba ba léegi ma leen topp ak ñoom ñëpp kenn ku nekk bittal ñu nga fi am fi gàcce goo xam ne si duutoo ko bokk ak kenn te mi ngi fii ne fang sëñ Tuubaa ci boppam moo dul nangu kuy xotti ormay dëkk bi waxuma la ak loo xam si da nga koy teg sa bakkat teg ko ci lu dul dëgg gone gu ndaw goo xam si ñi ngay tuumaal mat nañ la maam réewande xamadi mënu ko wees ngay sàkk ku ñu ku jur ci yoon wi ak ku jur ci yoon wi ku toll ne sëñ Assane Mbacke ak Cheikh Thioro nga di ko wax Ousmane Sonko nga jëlub sëriñam boo xam si mat na la bàyyi wala mu mat la mag mat la kilifa bokk ci yoon wi te kenn mënu ko cee génnee nga taxaw di ko wutal geneen kuréel gu bokk gu dul kuréel yoonu murit te kenn xamu ko ci moom lu dul rek bëgg lu neex Macky Sall mi nga àndal di xas Ousmane Sonko yàqal ko doon te xam ne ci yéen ci yàq der ngeen di dundee yàq der képp lañu leen fi installé ni ñu recruté saagakat yi doon saaga ñu di ko tuumal Ousmane Sonko ñu fay leen léegi ñu wëlbati ko jël bal yi di ko tiire Ousmane Sonko yeneen ci côté boobu ngeen bokk bu ngeen matoon la ngeen doon da ngeen rus a dem di sukk ci buntu kër buur ndax koo xam ne si bu yaakaaree ci yow la ñëw war nga rus jox ko dara ba pare toppaat di ko yalwaan loolu moo leen dal yéen bu ngeen matoon la ngeen doon wallahi lancim ku leen gis dana leen jox orma ngir jëmmi sëñ Touba waaye da ngeen a ormalul sëñ Touba da ngeen dem toroxal seen bopp ba kuy wax jaare ko ci kuy wax ci yoon wi lu mu wax jaare ko ci yéen te yéen doo nga mel ne yéen a nekk ci biir Sénégal yeneen kilifay diini yaa ngi fi yeneen këri diini yaa ngi fi kenn déggu leen te li ngeen di wax kenn mënu cee dem ba indi firnde ci ne li may wax te wéer ko ci sëñ Touba am na ndax ki ngeen àndal di ko saagal ba mu wàccee loolu seen bank toog leen ci bank boo xam ne si ku walaakaar naa fay too ngeen nangu faa toog ne déjj na ngeen bàyyi nag nit ñi ñu taxaw jàkkaarloo yéen wax ak yéen te du ngeen ci man dara ndax sëñ bi da leen a ñagoon ba dugal leen fi barab bopp bu ngeen ca nekkee woon na ngeen ci war a nekkee kenn du dox ba yem leen ngeen dem bëtt ñag ba am na ci kook fii la taxaw di jël xasi rek sëñ Tuubaa goog digganteem ak nit ñi ko doon jengloo wutiloo ko buntu kër buur muy xaalu la yarkan moom la ca doon wax mu dem ba nga xam ne politique bi ak bëgg ki muy àndal am ndam te xam nañ la waral muy ànd ak moom xam nañ ko ndax moo la gën a suur moo la gën a doyul fuuf ndax xam nañ wóor na ko wóor yàlla nit ñi ñu nelawuñ bañ koy woo kër yi ñëpp dégg nañ ko loolaa ko téye ci ba tey mu mën a jël xasida ak maamam ne loola sëñ Tuubaa la concerné xoolal ma loolu tey ji crédibilité bi mu ñàkk lan moo ko ko teg lu dul loolu moom kay booy dem demal rek waaye nag bul ñu saboteel sëñ tubaa wala nga ñuy saboteel yoon wi boo ko defee nit ñi am na ñoom xel ñun sëñ Tuubaa lañ Sëriñ Tuubaa lañ topp ana la tey ba mu amee tey lan moo ci topp bis bu set gàcc bis bu set gàcc ku la xool ne cam ku si xool tere daw kenn du xool sa dara jataay ñu la gis découragé loola boo toogoon fa la sëñ Tuubaa toogloo woon kenn du jóge ci àll ba di la yem bukki bu dabee ponkal ca doxin wala ngeen defe ne taalibe yi sëñ Tuubaa tànnal seen bopp ba seppi leen ni mu tànnee seeti boppam ba seppi leen man ngeen leen a yàq mënu leen a yàq te du ñu tee di nekk ay murit ba faw du ñu tee gëm sëñ Tuubaa ba faw du ñu tee joxe addiya ba faw may wax kii toogoon ci télé bi taxaw trois cent nangam mille yi ñu dajaleel Ousmane Sonko loolu di bëgg dagg xol bi xol bi di wañax ñi kenn ku nekk di wañax sa sa sa coxorte lu bon lu ne di ko yëkkati addiya day force addiya du force bi addiya du force waaye nga defe ne ku dajale sa nangam million rek ñu ne da ko war a da ngaa war a dem joxe addiya yow mi koy wax da ngay joxe dara alal ju bon ji ngay dox di dajale ba mu tax laa jaay sab cër maa ngi ne da nga koy rënk di wut lu ko doole nga bëgg nag ki nga xam ne moom moom moom dafa ànd ak nit woote programme nit ñi gëm ko yëkkati seen alal jox ko te ku ne am nga sa alal sa alal jox ko ku la neex ah nga taxaw naan ko da ngaa war a dem joxe nangam kii naan kaamil bi ñu la bindal sëñ Tuubaa lañ ko war a jox yéen yéenay kan. da ngeen a moom nit ñi wala da ngeen moom yoon wi yéen amu leen orma ci Touba amu leen orma ci sëñ Touba amu leen orma ci sëñ daxa jox leen nit ñi respe nit ñi dofu ñu jënd jëpp leen koo xam ne si moo la gën fuuf booy takk lu néeg moom ngay woo booy tabax lu moom ngay woo booy jàng lu moom ngay woo booy baas lu moom ngay woo te boo amee la nga bëgg fuuyoog moom bu la bëggee gis sax du la gis nga di ko tëju asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf